jabaru commissaire wala sa papa di commissaire sa nijaay di commissaire nga xam commissaire war nga toog ak commissaire war nga nekk ci commissariat bi dañu seetaan waxtu bi nii jàpp leen ne wari ngeen yéen ak policiers yi yéen ak commandant yi brigadier yi même général ministre bi njëkk bi nga xam ne mooy général Pathé Seck Pathé Seck men men men général bi te yor armée te yor pistolet yi wari loo naa ko nga ne Seck Seck sa ginaar <laughs> wari nga <laughs> may ma clip wa zamanu kul tarikal wula xoolal musóor bi ca kaw xoolal musóor aminata mooy yaayam ay xayral wara manga des ca yusre ba xaadim xayru xalqillaahi kii may bëgg a way man du Muusa du Eesa kooku mooy sangu sang yi Seydina Muhammadu rasuulillaahi sallallaahu taala alayhi wa sallam ibnu abdallahi aminata yaayam la xayral wara mata yusriba julleem ga ca makka ga moo jiite nari makka ya subhanallah doomi abdallah mi am na laay Mamadu ibnu Abdallah Aminata yaayam la xayral wara ma ca yusri ba tey ñu nekk ci waxtaanu koor ci yoor yooru koor Pierre ñu ci ziar ma Codé Dieng borom Tëngéej Aïssatou Diallo borom benn barak nuyu nañ ko di nuyu waa Waridim madame Gassama madame Ndour madame Mbodj ay taalib ali bu walaal nañu Tabara Ndiaye ñoom ñëpp de la part de Cuqudee nit ku yàlla baaxal Fallou marchand poisson ambulant ca Ouest Foire day jaay jën en ambulant ca Ouest nabu aan nekk ca Genova di ndeyu daara Abu Bilal foofu ca Genova di sama jigéen di jigéen du baax nabu aan nuyu naa la lam toora pour gedd alwaar kooku taalibe bu dëggu la ñu koy nuy moom foofu ca Genova moom nabu aan nuyu nañ tamit Debbo Amaïs Loor Fall nekk ca Sicap Baobab Debbo Amaïs Loor Fall ca Sicap Baobab ñu koy nuyu bu baax di nuyu tamit Serigne Thierno Bousso ak dama sekk ak bébé Maam Dia so soxna Lalla animatrice sa wal fajiri ñu ngi koy nii di ko ziar ak saa am na ku nekk ci ligne bi alo allo. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. El Hadj Abdoulaye maa ngi lay ziar. waa soxna si kookan la. man la Aïcha benn barak. ah waa na nga def Aïssatou. sama sëriñ maa ngi lay ziar nangu nañu ziar bi yaa ngi en direct ci télévision ah. bi. man nag maa ngi fii benn baraag mais dama am ñu nekk fii daal ñoo xamante ne dama am lu ma wax ci yow lu bari mais gëmuñu ko. waaw léegi nag ma bëgg nga woon leen tey kéemtaan yow ba ku ci nekk fooy seetaan télé rek da ngay coupé sa télé loolu laa bëgg tey nga defal ma. waa xanaa Aïssa foofu werante bi dafa bëri. daf fi bëri parce que yow nee naa leen yow tey kéemtaan dafa jéggi daay ba yow ku xool sa tegal rek xam ne am na lu la yàlla may. Aïssa gis nga ni ma tagalee tagal bi ci kaw. waaw ak Aïssa. waaw benn baraag benn baraag la woon. danaa ko def ay immeuble danaa ko def Manhattan. danaa def benn barak mu nekk New York. loolu laa danaa def benn barak mu nekk fi nga xam ne mooy Washington. incha allah. dama ne. Aysatu Diallo. waaw. neel samay noon yi toog di ma seetaan. waaw balaa émission bi jeex. danaa def kéemtaan bu yéeme ba Sénégal di ko waxtaanee. coupeel sa téléphone jàllo jeeri. waaw jërëjëf sama sëriñ. yal na la yàlla defal jàmm. kër yaa ngi bu soobee yàlla nañu ma xaar rek dinaa ko def incha allah. loolu yàggatul ci kanam rek. di nuyu soxna euh, gis nga soxna soxna Saïd Dia. Mhm. boo ci nekkee da masla dëgg la. ba ma duggee ci dëkk ba nga xam ne mooy Xuraysin. dëgg la. dama fa fekk soxna lan la jigéen bu mel na yow waaye moo la dàq. dëgg la. bët yaa nga commencé fii xotteeku nopp ya taxaw mu ñool ca kaw ñuul kukk ci bind waaye boo ko tiimee mu xees jigéen da ngay ñuul mbaa nga xees rek waaye bul xeesal ñuul mu ñuul xees te kenn xamul ndax dafa ñuul war dafa xees su ko defee Adja Awa Ndaw xaritu Adja Saane Sine sama xarit la waaye association ma famille mon espace nekk ci HLM di waajal ndogu maa ngi leen di ziar ñoom ñëpp dundul say lettre ma xool fa ma yemoon ca jaar jaar ya la ñuy bi téléphone yi waxtaan mu gën a yaatu. lii nag sa benn naataangoo moo ko fi yónnee. Mhm. nee day laajte oustaz boo xamante ne bu nekkee ci rajo bi ci suba si di anime day teg benn livre bu ñu naan Face Dakar di xool jigéen yi si paccal ñi xees ñi ñuul ba pare oustaz bu ñu bett muy pédicure manucure ci weeru koor gi loo wax ci moom am na koor wala amul koor. ki ko laaj kan la ko adressé ak kan la koy laaj. nee na ma laajal la ko yow. gis nga yow am dama ne gis nga dama ne taxawal laa wax am na laaj yoo xam ne buñ na ko yónnee sa kilifa. déglu ma rek dafa am laaj yoo xam ne buñ na ko yónnee ci say kilifa waroo ko nangu. ndax seytaane ak rambaaj yi nga xam ne ñoo ma bëgg a jot te mënuñu maa jot dañuy jéem a jaar ci yow ah, bul ko defati buñ la laaj te yu mel noonu da nga leen man damay jàng te sama sëriñ li may jàngal mooy yar ak éducation waaw incha allah balaa ngay tiiñal nit ci dara day fekk nga am ci lu ma leer dëgg la ndax nee nañu balaa ngay mbéj nit ki balaa ngay xam sàmba di li nu ko olof waxee balaa ngay toj gémmiñu sàmba xamal li muy wëli aram naan ko wasamal këla këmal sëla wa këmal sëla këmal sëla waxal ma këlal sëla këmal makalal zala kamal zala xam nga jigéen dóor da ko wàcc bu fekkee ne deful musiba waaye boo waxatee lu mel nii rek xamal ne moom mooy téeñal nga oustaz bu mu amati xoolal bu baax beneen laaj bi ay ca ay ca na gaaw xoolal beneen laaj bi lii nag dafa kenn koo xamante ne seen ko ñëpp dañ koy ñaawal nan ko oustaz Abou Bilal nga gëm mooy sa sëriñ te bu waa li muy waaraate yëpp ci lu ko neex rek la koy teg mm. nee na nag dafa bëgg nga génneel ko say kéemtaan say kiraama nga defal ko loo xamante ne tey ñëpp dinañ ko waxtaanee loo xamante ne seen koñ dinañ ko may jàmm ah, soxna soxna ah, soxna ah, Saydata mm-hmm. maa ngi lay nuyu bu baax di la gërëm waaye eh, Pierre dama wax léegi soxna bi nga xam ne mooy Sadia ne dinaa def kiraama waaye kiraama bi dama bëgg senegal yi bàyyi seen bët gis nga yow chaise bi nga toog nii wara man chaise bii ma toog dinaa ci def kiraama man sama bopp dinaa def sama bopp kiraama ca kanam tuuti su ma neexee yow ma def la melentaan léegi war a ma def la sombi su ma neexee ma def la sànqal léegi sànqal noflaay war wara ma def la lekkaran léegi bëgg suukar laa bëgg nga bëgg suukar ko doon incha allah yuusu ña nga cay waxtaanu koor ba tey ci yor yooru koor sama taalibe yi nekk foofu tàkko siise ca Colobane 2 noor yaayu papa sekk ca Tëngéej daanu na leer démb ba kenn xamul fu mu nekk Aïssatou Dramé nekk ca Pout nee na tantam bu ñu naan Awa Fall secretaire général bu aéroport Nouadhibou Mauritanie ak jëkkëram Baba Jaxate ak ay doomam yu jigéen ñoom Juna ñoom Maretu ak doomam yu góor ñoom Baba Sidi Góora ak Jibril ña nga ca base quartier Basra 4 ñoom dégg naa bu émission bi joxe ñoom ñëppay daanu leer ku la ko wax loo ku la ko wax loo eh dama ne dama ne liir loo lettre lañ la fi indiloo nduyloowuñ la dama da ngay jàng ab diine boo koy jàng da ngay yem lañ la yem loo bu amatee rek danaa la tànd par danaa la ñadd mbaa ma def la jaan su ko defee waxtaanu koor ci yoor u koor waxtaanu koor ci digg bi ñu daal jël appel bu mujj bi ma jublu ci kiraama yi jommal nit tëj émission bi ba àjjuma su ko defee am na ku ne ci ligne bi allo. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. kan Oustaz Abou Bilal. mel na maa ngi nii. waaw man la Khady Gassama. Khady Gassama na nga def. foo ñuy woowee ak foo dëkk. Kaolack gi la sa taalibe yi la woo daaw. ah na ngeen def. ñoo ngi nii rek alhamdulilah alhamdulilah. alhamdulilah naka koor gi. ah Kaolack am naa fa ay xarit Serigne Mansour waa sëñ Mansour waaw moo suñu sëriñ ñun. waaw bu sëñ Mamour. waaw bu sëñ Mamour. ndeysaan ku baax a ngi noonu. ak Baye Cheikh Niass. waaw ak Baye Cheikh waaw. waaw waaw waaw. waaw waaw waaw. waaye man de ñun dañoo toogoon rek war a demaat fële fële Mali jënd ji suñu waaw. mais sama cousine bi Zahra Niang. waaw moom daal nee na yow daal man naa la bàyyi parce que daaw bi nga ma ñaanalee woon benn yoon. nag ma ñaanal ñaan dafa jàpp benn bés rek mu jeexaat ñun ci lañ jógee daanu ba léegi. ah. waaw man loolu moo ma ja ko man de wax dëgg yàlla bi bi ma ñaanalee bagage bu ma jaay du taxaw ah mais daal boobu ba léegi daal mu ngi nii daal mu ngi noonu daal. ah bu ma la ñaanalee ah? eh, ana ana sa bagage yi jar na. sama bagage yëpp jeex na wax dëgg yàlla yëpp jeex na tàkk moom. léegi fan nga jàpp yoon pour dem. Mali. Mali. waaw. tàllalal sa loxo. naa sama loxo. lu ma wax nga jaar ci dégg nga. déet defal naa daaw ma woon daa waxal batal batal batal ba jaar ci daaw. ma jaay mu jeex sama xaalis bi dégg maa man nga gëm wala sa xarit bi nga gëm. kon da ngay déglu sama ñaan te ànd yar. waaw. neel batar. <laughs> batar. wa zaamaanu. wa zaamaanu. wa ziimu zaamaanu. wa ziimu zaamaanu. <laughs> wa liila wasal kaana walal kuuna wala wala على قلبولي على قلبالس على قلبولي وعلى قلدان قلبولي وزانا وقولي والالكالا وزيبانو su ko defee. waaw ñaan ba ca boppam topp na la parce que ni tey loo jaay mu jar. lu ma jaay mu jar. loo jaay mu jar. waaye léegi sama sama cousine bi ma waxaloon kon. ne ko yaa batar. Zahra Niang. ne ko yaa batar. li mu wax yëpp du dëgg. ne ko yaa batar. Yaabatar waaw. ne ko Yaabutur. Yaabutur. Yaabatar. Oustaz Abou Bilal. Yaabutur. Oustaz Abou Bilal. Yaabundux. Yaabandax. yëpp ay xeetu musiba la yoo xam ne boo ko waxalee nit lu mu jaay du jar te comme que day jéem a diingaan rek lootul jaay dootul jar lu mu bëgg dootul jar su ko defee soxna si mën ngaa tàggoo ba alxames ñu gisaat la ci laaj ak tontu ci weeru koor. tàggu ñëpp ñooy gërëm. maa ngi gërëm Ajinaar Scat Urbam. xanaa da nga ko amee góor sama xarit la. sa xarit la waaw. la grande voyante Scat Urbam. Scat nekk. di gërëm cuq cuqule. waaw di gërëm ñëpp. Ah. di sant ñëpp. jërëjëf sama xarit Mariam Mbacke maman Samba Aïcha Wali. waaw yow waa Touba yi lañ sama mag. Kébé Thiam ndeysaan yàlla defal jàmm. amiin jàng bi ngay jàng nii. Mhm. di nga ci am incha allah li nga bëgg. parce que xale bu yoroo ma ci tàngal yaay sëguna ngaay. Mm-hmm. soo gisee ma jël lii. pour mm-hmm. tiital la rek. dëgg la ndax jigéen kenn du ko dóor. Mm-hmm. jigéen dañu koy wayal. dañu koy raay dañu koy napp napp. saa doo ma wayal nga tëjee ko. déedéet dañu nekk ci weeru koor am na loo xam ne nag jigéen waru koo am sax ci liberté bu bëri léegi nag li may def fi mooy te mu leer nañ jëm ca la nga xam ne mooy kiraama yi caaxaan jeex na. Youssou da Silva kaba ca chaise bi maa ngi dem ca kiraama ya kon kiraama yi nga xam ne moom laay def dama bëgg ñëpp jàpp ko te xam ne dëgg lay doon te mooy am bés bu ne suba dinaa fi dekkal nit suba dinaa fi yëkkati kër gi taal ko mu tàkk ma koy fay te pompier du ñëw may ñaan nag ci barke alxatami yàlla bu ma gàcce jàpp danaa wan nag samay taalibe yi nga xam ne ñu ngi xeex guddeeg bëccëg ndax man am nañ lu leen metti ndax dañ leen di diingat tey ma taal Sénégal tey ma won Sénégal li ma mën tey ñu xam ne man borom kiraama laa duma ku ndaw alxatami naa na ma boo musan jaaxle neen wa zimaanu wa zamaanu krib musume ku daare tal krib wala kal zuuna al tarikal muuna wala kal xiima la kal zamaani wal kuuma al duurikal wala su ko defee yéen ñi nga xam ne boobu léegi yéen a ngi woote ñu dugg ñëpp ne nañu Abu Bilal kaay defal ñu kiraama won ñu kiraama kiraama yii nag laay tàggoog yéen ba suba su ko defee ngeen waxtaane ko seen kër di ko waxtaane ci mbedd mi taalibe yi di yokku ndax weddi beeg tiiñaal bi dafa bëri ay ca bismillah lii ab lan la ab sees la yéen ko gis teg naa ko yow dëjul nii puusal nii dama xool dama ne yow dama bëgg nga jóge fii nga taxaw yéeg ba ca kaw comme ni ma koy waxee waxtaanu koor ca kaw waxtaanu koor ca suuf yow sees bi ci barke alxatami ci darajay alxatami diggante Quraysin ak bët gànnaar Israël jogal ca kaw jogal wàccal demal tëb tëbal araba jalal yéegal ca kaw wàccal wa zuumaani wa zaamaanu wa xuusaani wa xuusaanu wa zaamanal kalwuuna al tarik al tarik ca kaw ca kaw a kaw yow chaise dawal ñëwal yéegal bi ca kaw yow chaise baajal ca kaw yow chaise baajal wa zuumaani wa zaamaani ay altu taxawal taxawal fa nga taxaw wàccel tuuti yëngalal sa ndigg mel na kuy mbaraxe mbaraxe ca kaw ca suuf ca kaw ca suuf <laughs> léegi nag gis ngeen kiraama bi ma def yéen ñëpp kenn weddiwu ko tey ma wan lu la jaaxal damay jël sama bopp def ko ñaar genn wàll gi ndeyjoor genn wàll gi càmmoñ nii lay def ni mu nekkee ñaar ñaari Kouthia ngeen di gis astafurla ñaari Abu Bilal Abu Bilal nday joor Abu Bilal càmmooñ ey maa ngi xar sama bopp wala kel seri kel tëri léegi nag bi ma yëkkatee chaise bi ba ngeen gis ko te sama loxo laalu ko damay xar sama bopp en ñaari parti benn bi jóge ci man dem fële wala benn bi fekk ci ma ñëw fii mu nekk ñaari Abu Bilal ndagam gis nañu Adama Awa Ousseynou ak Assane gis nañu ñaari seex gis nañu Bamba ak Cheikh Ibra gis nañu awa ak aadama waaye tey ngeen gis abu un ak abu deux abu xatami ak abu xatal yom ñëpp di ngeen ko gis tey wa tarikal wuula a wiisamal wal kuunaani wa laaral hamasima wuula <laughs>